mi ngi ah, nii man lii jaru ko Moustapha. teg cee laal rek moo gën a wóor de. baax na baax na baax na teg cee laal. ah wante naa cee laal waaw nga ma laajte la ma bëggoon dóor fii waaw suñ jumte ya amoon su jumaa ah, commencé di nga. waaw papa yow dama bisimilah rahmaani rahim laay wax. dugg julli. déet suñ am. bisimilah rahmaani baax na waaye am na leen lu gën loolu. boo dugg si jumaa dangay wax allahuma aftar lii abwaabu rahmatika yow wax na dëgg de man sa doom ji dama koo naw waaw léegi bismillah rahmaan rahim su ma ko waxee baax na baax na waaw waaye tamit daa am loo xam ne sunna la te des na sax papa yow booy génn si jumaa looy wax su may dugg bisimilah su may génn alhamdulilahi rabbil alamin laay wax dem sama yoon waaw papa boo génn si jumaa dangay wax allahuma aftar lii ab waabu fadlika xam ni nag sama bàyyi ma toj man yow jàngal naa la maa ngi dem jàkka ja banta ñëw kon nañ dem jàkka ja te ñëw